daal di koy fas yéene indiwaat président Macky Sall yëgle ko àllarba bi ñu weesu loola nag tey tax ñu bëgg a dellusiwaat ci yoon yi nga xam ni jëlee nañ fi boobule poste ak lu sababoon euh, lu ni mel ñuy dalal euh, nag ci waxtaan wi ak mbégte mu rëy euh, El Hadji Momar Samb di secrétaire général RTAS bokk itam ci conseil économique social et environnemental sëñ bi Samb ñu ngi lay nuyu am mbégte lool dalal ci waxtaan wi dalal ak jàmm. la nuyu dina la gërëm di nuyu say auditeurs aussi waaw di nuyu ñëpp ñu ñuy déglu mm. di am yaakaar ne suñu waxtaan xam na dina leen amal njariñ ni ma ko waxee euh, monsieur Samb tey dañuy waxtaanee euh, post premier ministre euh, bi nga xam ni wax naa ko sànq jëlee nañu ko fi ay yooni yoon ci diggante président Abdou juuf ak Senghor tey président Macky Sall itam defoon lu ni mel wax ni dana ko delloosiwaat ndax mën nañoo tàmbali kon wax ci solos premier ministre ci ci ci gouvernement ak cim réew ak ni yëf yi doxee. waaw euh, jërëjëf euh, li ma ci xalaat mooy post premier ministre moom euh, ci régime présidentiel bu ñu ne boo xamee ne président de la république moom mooy xale yoon moom mooy xalaat politique bi mooy lal politique am di ko doxal dénk ko nag gouvernement dénk ko premier ministre pour ñu doxal ko maanaam iliman ji daal mooy président la république fu mu ci moom ku ne euh, ci waawam ngay wëy euh, ci xalaatam ngay dox ci gis-gisam ni mu namme doxale yore réew mi ak doxale politique yi xam ne moom la fas yéene doxal ci réew mi système présidentiel bu demee noonu euh, daanaka premier ministre bi amul dogal ci boobu politique amu ci dogal mooy du moom moo koy xalaatal boppam mm-hmm. euh, dafay nekk rek jawriñ ndaw loo xam ne day dox ci tànk yi xam ne moom la ko président de la république abal te saa yu ko soobe moom président de la république mu jëlee ko fi mm-hmm. andi keneen wala comme ni euh, Macky defoon ci deux mille dix-neuf bi mu jëlee fi poste premier ministre par ko di doxal boppam lépp loo xam ne moom la war a doxal ci wàllu réew mi politique publique yi xam ne moom lay doxal jëmale ci population yi ak lépp loo xam ne mooy politique yuy jëm bitim réew loolu yëpp euh, moom moo koy gàddu euh, di ko doxal na mu waree euh, loolu moom mooy premier ministre ci suñu régime présidentiel bu doon régime parlementaire foofu moom Euh, premier ministre bi moom mooy xalaat politique moo koy doxal moom mooy responsable devant le parlement et boobu responsabilité bi sax bu am solo lo wuute naa responsabilité bi xam ne moom le gouvernement am devant le l' assemblée nationale. Hmm. ci régime présidentiel. parce que foofu euh, moom mooy xalaatal politique am mooy doxal moo koy jiite. di doxal lépp loo xam ne mooy politique publique yi dem ci réew mi ci askan wi wala lii dem bu bitim réew foofu président bu fa amee euh, du doon comme président yi xam ne moo am ci régime euh, présidentiel boo xam ne moom mooy dogal di xalaat voilà mm-hmm. loolu déjà loolu war nañ ko mën a leeral ñi ñu xam tigi ne rôle premier ministre ci régime présidentiel yi xam ne moom la ñu nekk euh, amul solo boobu amul boobu dayo boo xamee ne ne ñun dañu yaakaar ne dafa am pouvoiru boppam mu moomal boppam déedéet sañ-sañam mu yem ci liñ koy sant mu def ko voilà donc loolu euh, jaroon na leeral ci kanam mbokk yi. waaw amul amul solo boobu ci wàllu pouvoir waaye am na njariñ ci ni yëf yi doxee. waaw loolu nag loolu euh, baat boobu nga tudd sax mooy solo bi mooy njariñ. parce que loolu la ko euh, président bi xam ne réew mi ko fal parce que premier ministre réew mi falu ko réew mi dénku ko baatam mm. euh, ki mu dénk baatam am ci moom yaakaar mooy président la république kooku nag mooy jël lenn ci li xam ne moom mooy ay sañ-sañam euh, jox ko premier ministre ne ko doxalal ma waaw xam nga kooku la muy seet mooy lan moo ko mën a gën a may mu doxal yaakaar gi ñu teg ci ndoddam euh, ba réew mi jox ko baatam kon solo bi foofu mooy euh, utilité mooy li ngay wax njariñ mm-hmm. premier ministre donc am na njariñ bu baax parce que euh, wax dëgg yàlla liggéey bi rëy na yaatu na te léeg-léeg dina diis ah donc boo amee premier ministre mën na la doxal lu bari yoo xam ne moo koy gàddu te du soxla yow nga ci euh, euh, intervenir euh, di ci di ci jox dangay bàyyi mu liggéey loolu ànd ak ministre bi ànd équipe bi mooy équipe gouvernementale bi ñu doxal politique yi nga bëgg donc loolu njëriñ bi lu wér la lu am la ci ci muy mayee président la république mu gën a feex ci yenn yi gën a mën a toppatoo yeneen loolu nag mooy wane ne a ah, bu fekkee ne soob na ko a mbir mi diisul ci moom antan na ko eh, mën na ko doxal lépp te loolu la président yi fi jàlloon loolu lañ doon jéem ah président euh, euh, euh, Senghor président Abdou Diouf ba jamono ñu fu tabb premier ministre pour mu wuuta leen ci lu bari pour mu liggéeyal leen ci ñoom ni ñu gisee ne réew mi noonu la war a doxee mm-hmm. président Senghor moomu nga tudd euh, atum 1963 euh, daal nay woon jël dogalu jëlee fi poste premier ministre loolu toftalu euh, ci réeroo bi amoon digganteem ak président Mamadou Dia ñu bari jàppoon ni loolu moo tax mu doxalee nu ni ndax mun nga ñu ñëwaatal ci jamono jooju président Senghor jëloon dogalu jële fi primature. waaw xam nga li jëkkoon a am laata président. de la république euh, di euh, Senghor di jël dogal yooyu ba tabax euh, ci constitution boo xam ne dogal yëpp ak sañ-sañ yëpp ci moom ci loxoom lay tabbi du ko bokk ak kenn moom rek président wax ne mooy occuper tout l'exécutif tabb gouvernement am doxal boo doxalool boppam saytul boppam boobu da nga dañu jóge ci baal ma crise boo xamee ne moo andi woon euh, euh, li amoon crise politique ba amoon ba Mamadou Dia mhm. ñu jàpp ko ba tëj ko en soixante deux bu ñu jógee ci parce que boobu jamono euh, mën naa ne ko nekkuñu woon ci régime présidentiel tigi régime parlementaire la ñu nekk voilà Mamadou Dia moo nekkoon président du conseil président du conseil voilà donc mu mel ni sax dafa amoon ñaari kilifa ñaari bopp yoo xam ne ñoo yoroon exécutif bi ñoo yoroon réew mi mm-hmm. kon bu problème amee seen diggante rek day xaw a jafe mm-hmm. te boobu ñu ngi soog a dugg génn dugg ci indépendance te yu bari peut-être mënuñu ko woon lu bari euh, desoon na ci tabax état bu dëgër ak institution yu wér mm-hmm. euh, xëy na lu bari dugg na ci li tax moom président de la république euh, président Senghor xëy na yaakaar ne moom euh, euh, euh, dooleem daal wala dayoom daal daf ko war a gën a firndeel daf ko war a gën a dooleel te président sax mën naa wax ne président du conseil da doon jël lu bari ci li xam ne mooy dayoom ak peut-être sañ-sañam mu jël nag dogal constitution ñu tabax constitution bu bees boo xam ne lépp day dellu ci loxoom moom rek moom mooy président de la république moom mooy chef du gouvernement mooy chef de l'État mu gaa gaa gaaj euh, yëpp ci ci ci ci ci yëpp mu téye ko waaw di ci di ko doxal nag waaw di ko doxal nag ci ba 1969 et boo xoolee li mu doon doxal yëpp muy il était devant la scène maanaam euh, moo doon dékku lépp. Mhm. lépp luy dal ci gouvernement bi ci ci ci moom lay lay lay dal. moom mooy waxtaan ak euh, syndicat yi moom mooy diisoo waxtaan ak autorité religieuse yi. day day day def ay tournée politique am ak économique am moo koy def boole ci nag moom euh, boo fàttali ko boo leen fàttali ñu fàttali ko parce que euh, euh, puisque moom poète la woon littéraire la woon dafa amoon activité aussi bu am solo ci wàllu culture wàllu littérature parce que bàyyi ko woon hmm. yooyu yëpp la gàddaajoo woon et mu nekk donc lu lu xaw a diis bon hmm. rax ci dolli nag vers les années soixante huit xam nga ne amoon na crise aussi hmm. bon mai 68 mai 68. waaw mm. grève des étudiants ensuite même des dugg ci ba def grève générale bon 69 étudiants yi jugaat xëy na amul woon dayo parce que 68 moom yëngal nañu woon réew mi bu baax a baax. Mm. Euh, amoon sax loo xam ne mu ngi doon yëngu ci bitim réew loo xam ne ñu dañu foogoon ne lu ñu lëkkale la waaye li xam ne moo newoon ci réew mi ci tolof tolof ak jafe-jafe euh, moo andi woon nit ñi fippu. ba surtout étudiants yi donc loolu euh, mbir la yu bari te boo leen bu ñu fàttalikoo tamit parce que am na koo xamee ne ñu koy wax professeur Saliou Kandji euh, Paliou Mbaye yu Mbaye pardon moom archiviste la bind na benn téere boo xamee ne boo ca demee mm. histoire des institutions contemporaines euh, day dellu ci tarixu institutions yi mm. ni ko tabaxee kenn réew mi ni ko tabaxee cent cinquante 1956 à 2000 et mm. daf ci fàttali yooyu yëpp wane ne euh, circonstances yooyu daal euh, tegu woon na ci kawam diisoon na ba sax moom xam nga euh, amoon na benn attentat bu ko doon def ci benn bésu tabaski en 1967. Mhm. loolu yëpp mbir la yoo xam ne doon na firnde daal yëngu-yëngu réew mi ah liggéey bu bari bu bu da tegu ci ci ci ci loosam lépp ñu ñu jànkonteel ci moom lay yegg si mu mel ni moom daal mooy gàddu lépp. voilà mhm. euh, te lépp ci kawam lay dal mhm. alors ci la ci la xalaat ànd ak ay bokkam ànd ak partem euh, ñu xalaat euh, nu muy fexe ba déconcentré maanaam woyofal charge boobu mooy andi premier ministre poste premier ministre pour que moom mu mën a doxal lu bari ci moom li mu bëgg ñu doxal ko ci wàllu politique et de sorte que moom dina mën a toppatoo yeneen i mbir gën a feex ci liggéey bi day gën a féexal boppam tamit ci euh, coono bi xam ne ci la newoon. Mhm. loolu. Mhm. loolu moom mën nañ ko mën nañ ko wax ci ci référendum bu ñu defoon rek ci la ñu mën a dañu indiwaat rek poste ministre premier ministre def ko ci constitution bi alors que amu ci woon. voilà loolu daal mën nañ ko euh, tekki. ci ndimbalu ñi xam ne ay gëstukat lañu ay professeur d'histoire la mhm. waaw. ci li nga ci xam ndax ndax ñàkk premier ministre ci jamono jooju ñu doon doog a jot sunu indépendance tàmbalee tabax am réew amoon na njeexital ci ni yëf yi daan doxee. ah bu ñu bu ñu waxee dëgg rek li amoon mooy mbir yi. Euh, doon na dox quand Euh, doon lu ndox te amul woon euh, euh, lenn lu ñu mën a wax ne au plan institutionnel amoon na gàllankoor ci diggante bi président Senghor indee régime présidentiel j'allais dire presque absolu boo xam ne moom rek mooy dogal moom mooy doxal parce que doxal na ko de 63 à 69 mu mel ni juróom-benni at mu ne ci loolu wala juróom-ñaari at mu ne ci loolu. kon euh, boo seetloo mbir la boo xamee ne euh, amul boobu incidence amul boobu euh, dayo ci yàq wala xajamal wala tardel liggéey bi liñ ci mën a wax rek mooy dem nañ jamono boo xam ne yëg na ne moom ci boppam ak ah, ni réew mi fi réew mi toll ak ah, li xam ne moom la attan amoon na solo mu am premier ministre ma fàttali toujours ne premier ministre euh, ci waawu président lay lay lay lay wéy moo koy tabb tànn ko tabb ko moo koy fiy jëlee saa yu ko neexee saa ko soobe mhm. xam loolu moo lay wan dayo bi fi mu toll. waaye liñ ñu ci waxoon rek man euh, euh, baat boobu nga waxoon yëkki woon rek mooy solo bi mooy. njariñ li njariñ li. Mhm. donc bu tolloo foo xam ne nee na daal soxla na ko war na njariñ réew mi parce que loolu moo am solo mu indi ko. Mhm. waaw loolu nag dafa nekk ci ay circonstances yoo xam ne mooy natt. Hmm. moom ci boppam moom mi ñu dénk réew mi moom mi askan jox seen baat jox ko baatam euh, mooy natt daal euh, fu mu tolluwaayam ne daal lii war na am euh, am na ñoo xam ne nag dañu yaakaar ne ci système bi sax lu war a wéy la warul di dem di ñëw dañ ko war a wéyal. Hmm. ndax ñoom seen xalaat moo di charge président diis na diisaay boo xamee ne. Euh, rôle premier ministre dafay am solo ak yeneen yu ci tof mën a toftal hmm. loolu daal mën naa ko ci wax bu fekkee ne mën na andi leeraange ci euh, mbir mi. Hmm. Euh, ñu ñëw ci président Abdou Diouf moom la ñu tabboon premier ministre atum 1970. ginnaaw bi ñu ko supprimé euh, ci atum 1963 waaye moom Abdou Diouf bi mu ñëwee itam def na loole ci atum 1983 Habib Thiam nekkoon fii mu jël dogal itam supprimé parce que premier ministre euh, la taa mu fay teg Moustapha Niass euh, jamono jooja lu waraloon dogal bi jib waaw man ci gëstu bi buñ delloo toujours ci professeur Saliou Mbaye am na lu mu ci wax loo xam ne mën nañ ko dégg ndax xam nga Abdou Diouf 81 fi ñëw Euh, mais mën nañu wax ne dañ ko yàkkal réew mi parce que euh, ab Abdoulaye euh, Senghor laata muy voilà mm-hmm. waaw moo defoon article trente cinq xam nga dafa modifier constitution bi mm-hmm. ba mu may ko bu fi jógee ki koy wuutu doon premier ministre bi ah kon nag xam nga ne du réew mi moo ko dénkoon boppam mm-hmm. waaye disons article constitution moo def ba réew mi tàbbi ci ay loxoom bu ko defee bu de loolu la Euh, ñu war a dem élection 83 moom mu war a euh, bokk ci ñuy laaj réew mi ñu fal ko nag waaw booba nag euh, li li liy ëgg si moo am na baatu réew mi léegi moo war a doxal moom moom mooy kilifa gi ah xam naa def ne ah naa jox sama bopp dayo naa dëgëral sama taxawaay en tant que kilifa bi njëkk bi jiite ci réew mi bi jiite réew mi eh, moo tax sama xalaatu bopp mu ne ah soxlootul mu am premier ministre hmm. eh, te xëy na aussi li mu jànkoonte woon eh, parti ma ngi fii am na ay problème ñàkkul hmm. ak yeneen ak yeneen hmm. ah puisque fal nañ ko mu ne Habib Thiam bi ne woon premier ministre di xaritam yamit mu ko mu ne ko daal dañuy soppi léegi dañuy soppi mbir yi eh, dañuy eh, génn poste premier ministre eh, moom gisul woon njariñ li ci ci ci ci saasi li mu gisoon mooy war na moom taxawal boppam taxawal yëkkati dayoom fësal ko jël lépp loo xam ne moom la bëgg doxal ci yéeneem mu doxalal ko boppam ñëpp xam ne moom mooy doxal mën na ko antal na ko mu doxale noonu donc loolu Euh, day indi rek comme Senghor rek ni mu defoon euh, génn na ci benn crise ñu ngi dénk nañ ko réew mi mu fas yéene nag wane boppam euh, fas yéene doxal boppam soxlawul premier ministre mu ci digg dooleem ndaw la man na dox dem day am na sam foo xam ne ci ci ci li muy wax ne ñi koy ci ci téere boobu ma lay wax léegi day da waroon wax ne abbi bi mu waxtaanee Habib Thiam dafa ne ñu ñun ñun ndaw lañu fu mu nekk fu ñu toll foo xamee ne ne. xëy na loolu amul problème. donc euh, pour wane rek ne xëy na moom amoon na yëg-yëg ci yaramam ak ci xelam ne war na mën a doxal mbir yi war na ko mën a gàddu. waaw ah, mu gàddu ko nag dem ak moom. waaw ah, ba euh, euh, dix mën naa wax parce que. Euh, moom tamit def na lu toll ci euh, juróom-ñaari at daanaka. Mhm. comme Senghor rek. Mhm. Euh, mais déjà avant muy soppi mbir yi sax pour indiwaat premier ministre ba indiwaat Habib Thiam maintenant circonstances yi aussi circonstances mhm. yoo xam ne la aussi te day wane ne soxla na premier ministre dina ko war a amal njariñ ndax. Euh, réew mi yëngu woon na ci cent 1988 élection 88 yi par mhm. exemple yëngu woon na euh, présidentielle législative yëngu woon na xam nga PDS moom moom la ñu ñu joxoon bopp. Mhm. Euh, Abdoulaye Abdoulaye Wade réew mi yëngu na moom mu contesté résultats yi ñu contesté dem nañ ba sax ay ay ay émeutants mhm. bon. xeex bu métti ci ci ci yi ay comité même de quartier juddu nañu taxawal bañ ne ñu nangu résultat yi yooyu amoon na fi mu nekk lu diis loo xam ne demoon na ba sax Abdou Diouf ci boppam woote euh, te dañ yegg si na sax ba quatre-vingt-dix mhm. mu am ay élection municipale euh, opposition bi boycotté ko waaw donc euh, bon Abdou Diouf tamit oote na pour concertation nationale on va discuter de tout hein, avec un grand thé autour de la table bon mu woote pour ñun ñu waxtaan ci woote boobu nag ci ci jamono boobu la profité ne day dellu si premier ministre parce que xalaatoon na ne dina am solo mu dénk euh, mbir mi euh, premier ministre mu toppatoo loolu nekk ci digganteem ak opposition bi nekk ci digganteem ak askan wi mën a euh, saytu doxal li xam ne moom mooy concertation boobu ba mu juróon sax après gouvernement élargi ah en 1991 Abdoulaye Wade dugg ci gouvernement bi ak ñeneen ak ñeneen donc mën nañu wax ne. Euh, bo buñ ko seetloo daal ci coobare président bi lay jóge mm. te dafa mel ni ci jamono yoo xam ne euh, daf koy soxla ndax euh, am na liggéey bu bari bu bu bu bu bu wekku ci mbaggam yi. Mm. mu war ko doxal te bëgg ko doxal noo xamee ne ni xëy na bu ko defee mooy gën ci réew mi ah, mooy gën ci li xam ne moom la yéene réew mi. ak politique yi xam ne moom la bëgg mu yegg ci askan wi. loolu laa ci jàngat et day dellu si rek li ñu waxoon ne en réalité bon poste premier ministre mën na fi ne mën na fi bañ a ne lép mu ngi mu ngi mu ngi dépendre ci coobare euh, euh, kii xam ne mooy yor mbir yi ndax régime boobu moom premier ministre même buñ ne sax le gouvernement est responsable moom mooy responsable devant l'Assemblée nationale. mais responsabilité boobu boo ko seetloo dafay xaw a doy waar parce que du moom. Mhm. moom moo xalaat politique bi. du dëgg. Mhm. Euh, politique bi moom dañ ko wax rek doxalal. Mhm. xam nga. daanaka day superviser rek. voilà day coordonner day coordonner l' activité gouvernementale. Euh, ci euh, ni ko président de la république soxla ni mu ko waaw ci noonu la koy doxal. Mhm. Euh, li nga fi wax nii muy euh, kaawu président Senghor ak Abdou Diouf bu ñu ko seetee it dafay mel ni yenn saay premier ministre day nekk genre bu bouclier maanaam lu nuy teg seen kanam euh, bu jafe-jafe xëy na ñëwee wala situation boo xam ne bu xaw a compliqué la ndax ku mel ni président Abdou Diouf li nga fi wax booba xam na ni xëy na wax ji mën naa ñagas ndax ñu ngi woon jëm ci ay négociation yu ni mel mu mën mu mel ni kuy wut daal genre protection wala bouclier su ma ko mënee waxee noonu ci ci premier ministre ndax mën nañ ko jàppe it noonu. waaw xalaat boobu kat mën nañ koo euh, jàngat boobu mën nañ koo mën nañ ko téye du lu du ñàkk solo ndax euh, boo bu dee président moom rek moom mooy nekk chef exécutif moom rek moo fi ne. Hmm. lépp lu jóge ak jooytu réew mi xam nga am réew moom. Hmm. <laughs> dara du sotti. jàmbat du ci jóg. mukk jamais. ba ba ba ba ilaa yow mi diin parce que euh, boo tabaxee dara sax dina màgget. Mm-hmm. te muy tombé dinañ ne am mbir màgget na wala màbba na wala tali amatul. Mm-hmm. wala déet. waaw euh, du doy ndax nit ñi dañuy gën a bari dañuy gën a yokku te li nga defoon simit euh, xëy na ñi ko fekkee woon démb ñooy xam mais ñi xam ne tey la ñu fekk dañ naa dara amu fi donc seen seen seen seen mbiru bopp moo tax joytu moom ala kuliyaalin tant que àdduna mu ngi dem foog joytu am. imagine nag loo xam ne yooyu kii fépp lay jógee nag. di de yow rek la ñuy diir lu wax ñu ne président xam nga loolu. <laughs> xam nga loolu. boo xam day dafa metti dafa metti euh, man damay wax sax ne président man ban ban ban dund lay dund ndax loolu moom boo ci nee guddeeg bëccëg amoo guddi amul bëccëg amul sonn amul coono amul feer toujours yaa ngi ci waaw parce que soxlay nit ñi moom boo ci taxawee Euh, boo ko seetee rek sa bopp ak sa kër rek la wax sa mhm. kër mhm. nga xam ne euh, yorom réew nag muy ay këri kër ay million ngi million ngi kër euh, nga war a taxaw ci seen mbir te jooytu ku ne dina wóote ak jooytu moroomam ku ne am nga sa façon jooytu ku ne am nga sa looy jooy. Mhm. Euh, loolu boo ko seetloo grève étudiants ñu jaar ni ñi jaar ni les chauffeurs si boulanger yi ak yi dañ ko war a yokk ñeneen jóg fële transport yi ñoom lu ñuy am bariwul baykat yi jóg ñeneen jóg jàngalekat yi jóg voilà ñëpp jóg. Mm. ku nekk am na loo soxla retraité yi jigéen ñi ndaw ñi aussi ne ñoom kenn faalewle lépp kon fépp lay jógee kon bu nga am loo xam ne xëy na di nga ko jël teg ko mu nekk sa diggante ak nit ñi ak joytu yi xëy na dina am njariñ eh, njariñ li xëy na dina am solo eh, loolu eh, njàngat la boo xam ne aussi waruñu ko waruñu ko sofantal mhm. kon day andi ne maa ngi doon déglu keroog El Hadj Mbodj le professeur moom muy wax ne moom mosul d'accord sax suñu dindi premier ministre Euh, moom jàngat solo solo bi mu ci jàngat lu lu am solo la. Mm-hmm. lu nit ñi mën a mën a mën a xalaat la. Mm-hmm. waaye man daal euh, sama wàllu bopp li ma ci gis daal mooy euh, président moom ginnaaw régime bi présidentiel noonu la demee moom am na sañ-sañ saa yu ko soobee mu def ko saa yu ko soobul mu bàyyi ko. Mm-hmm. xëy na nag li gën mooy ñu arrivé à une stabilité boo xam ne bon ñëpp dañ ci ànd ne lii daal. lu am solo la moom la El Hadj Mbodj doon wax lu ñu fi war a bàyyi la ndax euh, solom euh, euh, moo ëpp ñàkk solo mm-hmm. waaye man ñun suñu wàllu bopp ñun dañuy xalaat tigi tigi ñun régime parlementaire ñu moo ñu gënal daal mm-hmm. <laughs> parce que parce que kii xam ne mooy doxal mbir yi dafa war a nekk ku jóge ci parlement bi boo xam ne Euh, euh, moom dina mën a responsable devant le mm-hmm. parlement devant mm-hmm. l'assemblée mm-hmm. te responsabilité kenn du ko werante moom mooy xalaat politique am moo koy doxal bu boobaa dina mën a assumer du début à la fin fañ koy nase ah, fañ koy xalaate fañ koy fente dëgg ko euh, moo koy def ba fa mu yegg dana ci mën a jël yenn décision yi ah oui oui rax ci boo xoolee par exemple man li ma gën neex ci mbir yooyu am na réew yoo xam ne sax dinañ am euh, euh, dañu am président mais euh, régime bi parlementaire lay dool mooy kiy gouverner. Mm-hmm. c'est le premier ministre. mooy gouverner boo jëlee Cap-Vert nga jël Portugal ba beaucoup de pays noonu la noonu la noonu la demee te te dafay dox. Mm-hmm. boo jëlee pays yu bari boo xoolee Allemagne xam nga foofu sax dootuñu wax nombre de mandats. Mm-hmm. yooyu parce que. Euh, ki fi ne bu fekkee ne baax na ci réew mi euh, parti bi xam ne moo ŋànk moo yor majorité bi moom la euh, askan wi jox seen bopp seen kàddu ñuy muy doxal politique bi xam ne moom la présenté du koy doxal saa yi ñu demee élection ñu ñu ñu demaat leen confiance ñu continuer dox doxal. bu mhm. ko defee xam nga moom toog Merkel toog na fi seize ans. Mhm. donc voilà di doxal. te looy gën a doxal di gën a miin di gën a baaxal. di gën a mm-hmm. rectifier di gën a wéral di gën a beral. loola daa mel ni luy yokk sax pouvoir askan wi. mais mbay. waaw voilà mu ay et puis xam nga loolu sax li tam moo am solo mooy. Mm-hmm. Euh, euh, euh, xam nga stabilité. Mm-hmm. dina indi stabilité bu baax ci. le régime politique bi fi ne mais surtout les politiques publiques yi dox politique publique yi ñu dox ñu ne feex fanweeri at xam nga kooku gis-gis boobu nga nekk ci ñaar fukki at fukki ñaar fukki at di doxal euh, dafay nekk lu am solo. Mm-hmm. am continuité mm-hmm. am euh, cohérence am continuité am loo xam ne aussi day refuloo tigi askan wi mm-hmm. waaye nag euh, régime présidentiel am na loo xam ne peut-être dina ko indi ci ne. Eh, benn nit la ñuy dénk moom la ñuy wóolu moom mooy doxal moom mooy euh, euh, téye lépp ci loxoom donc xëy na loolu moo gën parce que dans certains régimes parlementaires aussi dina am quelquefois instabilité ba mm-hmm. gouvernement bi sax man na mën nañ aj mën nañ ko aj pendant des années mm-hmm. tu vois loolu yëpp <laughs> am dina am mm-hmm. ay weer wala même at tu vois ay blocage mën na am loolu yëpp effectivement lu mën a am la mais nag euh, lu ci man doon rek Euh, moo di na euh, régime bi xam ne moom lañu teg euh, kañ fa teg wala ñañ fa teg ñuy doxal ci njariñu askan wi. Mhm. loolu moo solo bi daal. bu ñëpp yittewoo njariñu askan wi coow mën naa ba ñaam. voilà voilà ci lay ci lay et nga créer ay conditions yoo xam ne de dialogue. Mhm. de de concertation di daal réew pencoo daal boo xamee ne. Euh, euh, euh, mbir yi dañ koy waxtaanee ñi ko war a waxtaanee politique bu ñu war a yëkkati ñàkk a war a jëfee ak ña war a jariñ man ñu mën a bokk ca waxtaan wa mhm. de manière permanente nag mu nekk loo xam ne mhm. moom la ñu doxal mhm. bon mooy li président Macky Sall di doxal depuis mu ne fi jéem fexe politique bu ñu yëkkati acteur yi moo xam ci élevage la moo xam ci commerce la moo xam ci ci ci industrie la moo xam ci leneen la ñun ñu mën a toog waxtaan ko gis nga barke Demba ñu ngi doon def une conférence sociale. Mm-hmm. ah oo oo ñëpp ñoo xam ne yëngatu ci liggéey moo xam formel la informel la ñu toog nag waxtaanee yan ban politique la ñuy def au plan social pour protéger ah euh, ñi xam ne ñoo néew ji doole ñu ay retraité lañu wala ñu ci informel bi nu ñu fexe ba artisan yi xam ne am mosuñu am retraite wala béykat yi xam ne mosuñu am retraite te seen njëriñ ci réew mi kenn werantewu ko. fonctionnaire yi rek am retraite xam nga loolu aussi ci réew dafay xaw a doy waar mhm. donc an day ni justice sociale ñu ñoo ñu ooleet ci waxtaan ñu toog waxtaan ñu seet lan loo xam ne mën nañ ko def ba ñoom ñu mën a am couverture boo xam ne li leen di yiir ci seen yëngu ci réew mi ndax seen yëngu ci réew mi day jëriñ réew mi day jëriñ askan wi mhm. ñu bañ a bedd beddi kenn te loolu waa pour nga def ko nag foog nga am gis-gisu pencoo gis-gisu boole ñëpp di waxtaane mbir yi euh, ci fànn bu mën doon Mhm. seen émission Demb ak Tay ngeen di teewlu ci mi FM ñuy dalal El Hadji Momar Samb nekk secrétaire général bu RTA-S bokk ci conseil économique social et environnemental ñaari contexte yi nu weesu muy euh, président Senghor ak Abdou Diouf wuute na ak euh, bu président Macky Sall mi nga xam ni atum 2019 am na léegi ñaari at yu teg tuuti dafa wax ni euh, kon day jële fi post premier ministre ngir yëf yi gën a dox mu indi slogan fast track mu mel ni kon premier ministre bi njariñam foofa dañ ko laam-laamee ndax bu ni dafa bëgg yëf yi gën a gaaw mooy ne yëf yi dafa yeex euh, booba contexte noo ko jàngatee 2019. waaw day indi rek ci euh, li xamee ne moom laa waxoon sànq euh, moo di ne moom yëg na ne. Mm-hmm. xam nga aussi loolu mooy mbiru nit mbiru àdduna. yëg na ne moom fu mu toll li mu soxla pour deuxième mandat bi il faut que affaire yi bar daal. mu xalaat ne li koy baral mooy yoo xam ne mën na ko gàllankoor xëy na euh, mën na yéexal mbir mi xëy mën na ko dindi boo seetloo par exemple euh, ñu ngi ko doon waxtaane rek barka démb euh, d'ailleurs ci loolu sax la ñu waxtaane woon ci mbir mi mooy moom bu décidé dara da koy jaare ci premier ministre mu dem ci ministre yi foog mu jaar donc ci ci loxoom premier ministre mu jàngat ko kooku euh, jébbal ko premier ministre bi euh, kooku wax ko li mu wax def ca la muy def bind ko mu indiwaat ci moom secrétariat présidence ensuite moom mu dem ci président mais jaabante boobu yëpp <laughs> xale na moom xëy na dafa yaakaar ne jaabante boobu yëpp mais perte de temps la benn ñaar xëy na moom euh, yéeneem bi mu am ak xarar bi mu àndal pour que mbir yi bar mu ne laa mbir yi man dama koy jëlal sam bopp voilà léegi je vais être au devant politique li ma bëgg a doxal ci réew mi li ma yéene réew mi man maa koy xoolal sama bopp maa koy ak samay ministre directement waaw du am kenn ku ku dox suñu diggante acca ministre tel santé yow defal lii nañ tabax hôpitaux yi allez yow gaawantul yow mi yor euh, sport bi stade yi wala yow mi yor euh, euh, bay bi acca machines yi et cetera fépp il était partout boole ci ay tournée économique et cetera waaw maintenant li li xaw a euh, euh, euh, jaxase mbir mi om xam nga depuis deux mille vingt mars deux mille vingt ba li jamono tey adduna bi dafa dafa dafa dafa dafa taggatémbe mbas mi ñëw arrêté lépp jaxase lu bari waaw xëy na loolu aussi élément la peut-être mais peu importe lii ma ñu mën a wax rek mooy ci ku ci ayam dafa am circonstance yoo xam ne mooy teew ci moom Euh, euh, feeñal ci moom yee ci moom xalaatu ne ah soxla na nag ku dox diggante ma njëriñu askan wi ci moo xam joytu yu joytu moo xam soxla yu ñu am moo xam politique yi war a jëm ci ñoom hmm. mu ne fii soxla naa ko rax ci dool yi xam nga euh, déwén Euh, maanaam dans quelques mois. Mhm. président de la république moom mooy doon euh, président de de l' Afrique disons. waaw <laughs> waaw loolu nag mbir la bu am solo boo xamee ne bu bëggee moom parce que xeex bu muy xeex au niveau international boo seetloo temps yëpp jamono pour soppi doxalin yi. Mhm. pour que Afrique nit ñi gën a koo fonk. pour que Afrique nit ñi jox ko gëddam. pour que Afrique bor yi ñu teg ci bopp ci ci ndoddam sax ñu mën ko far. yooyu muy wax yëpp ak feebar bi lii xam ne moom la ñu waroon ci am ci vaccin nu muy xeexee ba ak vaccin yi gën a ñëw lii xam ne mooy solidarité internationale ni mu war a gën a taxawee ba ñu fonk Afrique ba rapport yi am sax euh, mu nekk ay rapport yoo xam ne de partenariat lay doon au lieu que muy nekk de rapport yoo xam ne euh, dañ lay dimbali nga ñëw di ñaan et cetera wala ñii di di xuumtu di la fexe di li la teg yoo xamee ne jaar sa kaw yooyu yëpp am na fi loolu nag bu ko bëggee ni mu ko waxee nii wax ko OUA wax ko forum bu ne mu wax ko fa. Mm-hmm. même mbirum sécurité mu wax ko ko défendre Afrique boo loolu bu ko bëggee gàddu am ci yéene fook mu jox ko axam rek mm-hmm. foog mu jox ko axam ak taam parce que loolu dafay laaj déplacement yu bari dafay laaj euh, euh, yëngu yu bari teew ci fi yu bari donte doon na teew ci fii wala fële léegi nag dafay teew yor kàddu Afrique. dootul kàddu askanu Sénégal donc waaye kàddu askanu Afrique ni mu ko doon defee temps yi mu gàddu ko nag dem fexe fu mu ko mën a lijjante lijjante loolu nag bu amee nga jànkonteel la sa réew aussi euh, euh, euh, am na ay ay ay waru waru loo la war lu bari am na ay jooytu yu bari am na ay difficulté yu bari ñu ñuy am fu nekk ñu ñaa jooy ah foog nga am nag loo xam ne dina mën a dékku loolu lépp dina ko mën a dékku dina mën a euh, solal sottal li xam ne moom nga euh, yéene réew mi ba mu mën a mat bu matul tamit mu mën a dab dabal mat googu ba euh, ñii xam ne ñooy askan wi ñu mën a am as lëf ci li xam ne moom mooy yëngu-yëngu ci réew mi di koom ak yeneen i yelleef yoo xam ne war na dem ci ñoom donc loolu à mon avis lu am solo la moo tax moom ba mu ko nattee parce que damay faral di wax toujours mais wax naa ko sànq ñoom ñooy seet régime présidentiel la ñu ne waaw soxla naa lii waaw na ñëw soxla ma ko parce que yaakaar naa ne daal ak sama kàttan ak sama yéene fu ma toll euh, man daal maa mën a maa war a mën a yor lépp daf doxal lépp du ma seet intermédiaire du ma seet ku ma defal léegi nag ah, lii wàcc ci moom ah, jamono bi euh, moo ko indi certainement mu ne léegi nag man soxla naa nag ku ma wuutu ci yenn yi ndax euh, wax dëgg yàlla am na loo xam ne dina ma war en tant que président de l'Afrique boo xam ne bu ma ko ba deful defewul nenn ni ah boo sàggantul du mu mat sama sama yéene duma ko mën a matal hmm. ah donc euh, voilà c'est très pratique quoi voilà hmm. voilà donc man euh, noonu laa ko jàngate hmm. et wax tamit ne xam nga jamono ji ñu ne wax dëgg yàlla mbir yi tar na tar taraay boo xamee ne te xam nañ ne Covid bi euh, euh, moo ko indi pour l'essentiel ndax la daan jar dërëm jóge bitim réew dinañ ko ful ndax lépp yokk ci wàll woowu ñu ngi wax sax énergie bi pétrole bi yooyu yooyu yëpp mais yooyu boo ci boo ci bëggee taxaw il faut nga taxaw ci joytu askan wi joytu yu légitime rek parce que askan moom li mu man daan dooleem yëngu pour teral waa këram pour euh, jël leen en charge am na yoo xam ne fa tolloo dootu ko mën a muñ donc yooyu yëpp nag foog ñu soxla yooyu yëpp nag foog ñu taxaw ci te au quotidien ah, donc boo amee ku lay coordonner l' activité gouvernementale ah, day am solo day am njariñ dama jël su baat boobu nga waxoon day am njariñ bu baax mm-hmm. na njeexantel bi rek nekk ci loolu loolu loolu la ñu surveiller mu jëm ci luy jariñ askan bi loolu rek moo am solo. Mhm. ci mbir yi waaw. waaye opposition bi ñoom dañoo jàpp ni fast track bi daal moom moo lajj euh, yëf yi doxul dara moo tax mu bëgg koo indiwaat ndax xam ni post premier ministre xëy na am na njariñ ndax moom yëf yi diis na ci moom lool euh, laaj bi mooy ndax diggante bi ñu ko fi dindeek léegi fast track bi ñu doon wax jàpp nga ne am na yëf yi gën naa bar. man benn exemple rek laa lay jox euh, pour wane ne fast track bi xëy na bu bu fekkoon amul sax mën na wax deux mille dix neuf la du dëgg ci deux mille dix neuf lañ kii deux mille vingt as mbas mi ñëw tëj lépp daaneel koom-koomu adduna bi waxuma Sénégal rek mais xoolal deux mille dix neuf wax léegi ñaata hôpital de qualité exceptionnelle la def ci réew mi ñaata ci diir bu gàtt <laughs> bu Touba bi euh, bu euh, Kédougou bi Euh, bu Sédhiou bi ah Banati ah je bu Kaffrine bi macha allah mais loolu rek doy na sax ma ne euh, ñu ne ah euh, fast track bi day vraiment am na solo mais nga xool ci même wàllu sport xoolal stade bi xam ne moom la ñuy la ñuy tabax fa mu toll daanaka léegi mu sotti ci ay weer lañ koy natt léegi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne peut-être mënuma ko lim lépp opposition moom bon. xam mën naa comme ni ñuy wax rek il est il est dans euh, bi euh, euh, dafa amul amul njariñ waaye même bu am andiwul woon sax lu sot waaye kilifa gi am am yéene baral mbir mi di ko doxal ci wàllu PUDC di ko doxal ci wàllu xëyu ndaw yi di ko doxal ci wàllu feneen di ko doxal ISAB yi ñu construire ak yooyu loolu yëpp dañuy seet na amal na njëriñ askan wi wala déet. man li may euh, euh, euh, naxarlu ci opposition bi mooy du ñu seet lii defu ndax amal na njariñ askan wi ñu wax ne ñoom moo leen tax di wax di jëf te képp koo xam ne kilifa nga ci réew mi dafa def politique te te yow li la tax a soobu ci politique du sa bopp du sa jëmmu bopp du sa carrière bopp waaye askan wi nekkinam am na neneen nga war a xalaatee da nga war a ëlbati xalaat bi ci ne waaw kii li mu def ci benn at bi deux mille dix neuf ba deux mille vingt nan lañ ko mën a jàngate ndax lu am njariñ la ndax lu yóbbu ñi ci kanam la wala luy dellu ginnaaw la ci domaine bu ne nag muy agriculture machine yi pour que production bi gën a rëy pour que ñu mën sax xalaat industrialisation courant bi ñu doyal ko noo xam ne dina tax ba industrie bi ñuy wax sax mën a ne ndax am na ay jéego yu ci am wala dara amu ci wala sax dañu dellu ginnaaw ndax noonu ngay nette mbir dellu ginnaaw bi wala jëm ci kanam bi njariñ li ci askan wi nga koy nette ñun loolu mooy suñu euh, maanaam suñu takk foofu lay nekk loolu mooy suñu repère suñu takk bu ñu natt mbir bu ñuy takk am mbir buñ ciy sóobu wala buñ cay génn mm-hmm. ci fekk mu nekk loo xam ne luy amal njariñ wala luy delloo ginnaaw askan wi lu leen yóbbu ci kanam la wala lu leen di delloo na lu leen amal njariñ wala lu yàq seen njariñ te wax dëgg yàlla nag kuy waxal yàlla rek dëgg rek doo muur say bët nga gis lépp moo xam Ila Touba moo xam pont bi Casamance moo xam pont bi xam ne mu ngi mu ngi waaj pare fële ci ci Foundiougne moo xam tali ñuy def pour génne ay ay doomu aadama ci la ñu newoon ñu enclavé ñu génne leen boo demee ci Fuuta wala feneen ba ñoo xam ne amuñu woon ndox bu sell ñu ñu leen di amal ndox euh, KMS 3 ni ñu ko baralee ba mu yegg euh, euh, même bu lépp sottul parce que adduna moo deme noonu moom laay faral di wax ma ne ku mën ci doon muy opposition mu ñeneen kenn mënul waat ne nga ma di nga matal lépp mënul ne waaye da ngay seet rek ci jir jooju ci at bi durant cette période rek li fi defu ci lu baax électricité bi fa mu yegg même internet bi fa mu yegg yooyu yëpp lu am solo la boo ko nattee nga xam ne donc lii defu mu moo budul Macky Sall nga mën nga sax dindi tur bi mais lii defu te ñi ko ñi jiite réew mi di ko def lu amal njariñ askan wi la lu amal amal amal njariñ askan wi la ci dans sur tous les plans nag muy santé muy éducation muy eau électricité muy économie sax di dimbali nit ñi di leen accompagner wala di génn ñenn ñi ci ndóol même bu matul sax mais <laughs> dama wax ne yow mi yor sa kër yooyu boo ko def sa sa say waa kër say doom sa njaboot yëguñu ko sa njaboot xëy na wax mhm. li ñu fi wax nii mooy xëy na contexte socio-économique ak xëy na euh, enjeu yi nga xam ni moom mooy xaar euh, Afrique euh, ci contexte bi ñu nekk waaye da dafa am itam leneen lu ci ne muy ci wàllu politique tey ku ne xam na ni opposition bi ñu ngi gën a taral xeex bi ñu ngi jëm ci ay élection euh, euh, dundinu àdduna bi itam daanaka lu ci bari dafa sooxe crise sanitaire bi waral ko ñuy xaar dund gi sax gën a yokk tàmbali na euh, jàmbat gi itam gën a jolli est-ce que it nekkul président day wut xëy na bouclier comme ni ñu ko waxee woon sànq ku muy teg ci kanam ndax opposition bi gis nañu fan yi ni ñu koy songe askan wi yuuxu fee ndax di it itam du loolaa waral mën nañoo jàpp ni loolaa waral mu bëgg a indiwaat poste bi. xam nga dama wax ne euh, loolu boo ko xalaatee du xalaat bu ñu mën a soofantal. Mm-hmm. waaye ginnaaw man ngay waxtaanal man dama lay wax rek sama axulaay taala li ma gëm li ma xalaat ak li may dund. Mm-hmm. Euh, xëy na opposition bi mu ngi yëngatu lu nekk mu ngi koy def mu ngi sax jariñoo utiliser euh, jafe-jafe yi am te umpalewul ne jafe-jafe yi am fondamentalement fi ñu toll ba suñu croissance économique maanaam suñu yokkute koom jóge six presque sept pour cent dellu ci six et quelques pour cent dellu ci wàcc ba daanu ba un virgule cinq pour cent am na yu réew yoo xam ne dafa def réception maanaam si si zéro bi la hmm. la wàcc si ginnaaw zéro bi hmm. un virgule cinq loolu yëpp nga xam ko xam jafe-jafe ñi am ci àdduna bi yëpp yow nga nekk opposition xam li ñu wër ci wàllu euh, fitna fitna mm-hmm. ak violence boo xam sax fitna rek mais ay ay déstabilisation réew yu ñu wër mm-hmm. boo xam ne terrorisme mu nga fa parce que mën naa wax réew yu ñu wër Sénégal yëpp daanaka dara amu fa stabilité bu bu wér mm-hmm. waaw yow saw réew euh, euh, nekk une sorte d'exception ci loolu xaw a génn ci ñëw xaw a taxaw yow sa xalaat yëpp mooy nooy fexe ba yëngal réew mi mu jaral la sax nga taal fitna ba ay nit di ci loru di ci dee ngay toj ay magasin di taal ay kër di taal ay liggéey bërëbu liggéey ay station service sax yooyu loolu bu amee ñooñu ban forme opposition boobu euh, ban façon nit lañu ban façon euh, sénégalais lañu ndax xam nañ li ñu li ñu nar a ñàkk bu ñu duggee ci instabilité est-ce que bu ñu duggee ci instabilité du ubbi fitna du ubbi buntu euh, li xam ne moo xaw ci réew réew yëg ci ci réew ñu am fa porox ndool loolu ku amul gis gi surtout que pétrole bi am ci réew mi te yàgg naa ko wax pétrole bu amee ci réew surtout Afrique muy réew mu doon sax même bu dul Afrique ñi xam ne ñooy borom doole borom alal ci àdduna bi seen bët yëpp seen xel yëpp ci loolu lay ne ñu ngi saliver maanaam ñu ngi convoité xanaa lu ñu hmm. ñu ngi ñu ngi yàkkamti xiif ba dal ci loolu ba man fa am lañu teg seen loxo xoolal ni ñu def Kadhafi la am libi xoolal ni ñu def Saddam seen Irak xoolal ni ñu def Congo xool ni ñu def euh, même nu mu dire Nigéria à un moment donné ay guerre civile même di fa tàkk ñoom li leen di soxlaal mooy na guerre bi continuer ñoom ñuy rocci alal yi ci réew ma xam ah, nga amoon na sax Libéria avec les jamaa hmm. mais yooyu bu amee yow nga ne ci réew mi nga bokk bëgg nga réew mi mais nanguloo dal am am na leneen lu nekk ci ginnaaw donc man li may wax ne moom opposition euh, responsabilité bu jëkk ci opposition am réew mooy nga xam sa tolluwaayu réew li ko wër lu jege mais li wër euh, sa continent bi nga bokk dëndu Afrique mais li àdduna bi ni mu fu mu toll foo xam ne boroom alal dafay not ñi amul alal mu jaral ko lu ne mu jaral ko mu taal réew mu jaral ko mu dal ci seen kaw dootuñu xalaat indépendance réew mi dootuñu xalaat dara dootuñu xalaat ñay sànku ñay loru dara ñoom li ñu soxla mooy seen alal loolu boo ko xamee ña nekk ci mi réew am la minimum loo xam ne ne de démocratie minimum boo xam ne mën nañ jongante lii war kañ mooy ñu woote jàmm dem ci ngir jàmm waaye moo am ñu taxaw ne jàmm. man soxla ma jàmm te dinaa ko defante te yow mi wax dinaa ko defante ak doole askan wi joxu la doole joxu la dooleem joxu la sañ-sañ parce que am na askan ñu mu jox sañ ak doole joo xam ne ñooy aar réew mi ci biir ak ci réew mi ci biir ak ci biti askan wi moom ñoom la ko dénk teg fi kilifa goo xam ne ñoom la ñu jox baat bi pour que mu doxal loolu kon yow foo féete beddeeku nga réew ma beddeeku nga askan wi topp sa sa sa jëmmu bopp sa xalaat du bopp parce que nit ki sax bu amee xalaat bu rafet yaakaar ne moo am dëgg ci ñëpp rek waaw mën naa am dëgg ci ñëpp kenn baaxul justice baaxul procureur bi ñu fi teg baaxul bi fi génn baaxul commissaire bi baaxul gendarme baaxul baaxuñu euh, assemblée baaxul benn benn amul benn kuréel ci réew mi buy yëngu te jaar ci li xam ne mooy yoonu te yoonal ñu yoonal ko nga ne dara baaxul yow rekk a baax yow rek a dëggu waa bu boobaa waaw réew mi nu mu war a def te mu jaral nag nga yàq nga yàq liggéeyu askan wi nga yàq seen dal nga yàq seen yëngu-yëngu nga yàq seen seen mën naa wax sax seen jaamu yàlla ndax am na foo xam ne boo fa tolloo dootoo mën a jaamu yàlla ni nga ko war a jaam. ngir ñëwaat ci laaj bi ndax itam euh, mënuñu jàpp ni contexte politique bi bokk na ci li waral président bëgg a indiwaat poste premier ministre. foofu man de contexte politique bi gisuma euh, euh, loo xam. waaw waaw mais comme li ma la wax rek nit daal président moom mooy natt. loolu nag mën nañ ko mën nañ mën nañ ko waxtaanee mën nañ ah xëy na contexte bi la xëy na dafa ragal ne bu continuer moom rek li ñuy dal ci kawam li parce que wax naa la sànq ne jooytu yi wax ma sax dal bi mais jooytu yi fu nekk lay jógee kon moom il est obligé d'aller d'aller partout jéem a defal ñi wax ma sax waa politique bi rek waayu politique yëpp waaw mais defal ñi parce que li ëpp solo ci àdduna àdduna bi ak réew mu mënti doon li ëpp solo du opposition bi la muy def parce que bu fekkee voilà bu fekkee opposition bi day def te la muy def saful askan ma maanaam eh, liggéeykat yi yooyu dañuy kuréelu ci ay syndicat dañu yëngu ci bërëbu liggéey ñu leen di toppatoo ci loolu seen jooy foofu la féete ñi xam ne dañuy jàngale seen jooy fa mu féete dina utee lu bari boo xoolee réew bi nu muy doxee rek sax politique yi dañuy doxale ah lii réew soxla li muy doxale nga xam woroo bi kon yëpp solo mooy nan lay euh, jëlee en charge préoccupation population jooy yi ci difficulté yoo xam ne ne difficulté yu bees la yoo xam ne mbas mi moo ko indi xam ñu ko woon ñu bëgg dooraat nag ñu bëgg a yëkkatiwaat nag koom bi yéen ko gën a dooleel loolu moo ëpp solo nag wax dëgg yàlla man de sama jàngat mooy loolu moo ëpp solo yëngu-yëngu opposition léegi opposition nag mën na profiter ci situation bi xam ne situation bu naxaari la ah euh, jooy yi bari na mbir yi tar na mer yi bari na mën na ci profiter yee fit na effectivement mën na ci profité gën a dal ci gouvernement bi loolu yépp mën na am effectivement lu ci mën nekk rek ki xam ne mooy jiite loolu yëpp da koy suuraale ban la ci nag euh, xëy na yow doo ko mën a wax ba mu sotti. mais mën nga jël yëpp boole. Mm-hmm. mais taxaw nag ah, xëy na yooyu yëpp boo ko boolee. Mm-hmm. dina soxla nag nga am peut-être premier ministre encore une fois. Mm-hmm. premier ministre vraiment li muy doxal dañ ko dénk rek te du tere am na ñoo xam ne boo xoolee sax opposition bi du tere mhm. opposition bi di dal ci kaw président lu lu xonq ñu ne président bi la ne président bi la ku gërëm di tu ñu mhm. loolu même ak au temps premier ministre Abdoulaye Dione vous vous rappelez am na ñoo xam ne seen seen seen seen seen ñaxtu yëpp même bu ñu bu leen seen jabar porté plainte sax ñu ne président Macky Sall seen bopp di métti ñu ne président Macky loolu moom am na gannaaw lépp it nag moom la ñu dénk réew mi. voilà waaw kuy jooytu it ci moom ngay jooytu. loolu la loolu la. lu jaadu la jërëjëf euh, El moom Momar Samb ñu ngi lay gërëm bu baax amoon mbégte lool dalal la ci euh, waxtaan wi. Euh, mm. dellu si waatoon ci poste premier ministre yi nga xam ne jotoon nañ ko fi jëlee ak delloo si mm. bu ci ne ana lu ko sababoon wala la ñu waxoon ni moo ko waral ñu ngi lay gërëm bu baax ci ci safoo bi parce que <laughs> am na ñeneen ñu fi ne mais. léeg-léeg wax dëgg yàlla Fatou da ngeen may oo pour ñu waxtaan euh, di ma oo pour mu wax sama xalaat mm-hmm. loolu yëpp euh, wax dëgg yàlla dama am naa ci mbégte bu baax a baax ak faale la wax dëgg yàlla di gërëm aussi say auditeurs mm-hmm. ah di di leen baalu àq ndax sama wax léeg-léeg <laughs> dafay di dëgër bon mais xol bi mooy wax ci la plupart du temps maa ngi ciy jégalu bu baax waaw mais nag nekk à votre disposition rek waxtaan moom nii rek la mhm. li gën baax ci réew mooy loolu rek waxtaan wax sa xalaat amul saaga amul xaste amul menacé waaw mais wax sa xalaat rek xam ne nit nga ci nit ñi mhm. waaw kon nit ñaa ngi fi yow nit nga ci nit ñi da nga war a xam nite daal jéem a nite moom laay jéem. maa ngi lay gërëm di la sant jërëjëf. ñu ngi lay gërëm ñun itam El Hadji Momar Samb la woon secrétaire général RTA-S bokk ci conseil économique social et environnemental waxtaan wi mun ngeen ko waat ci réew mi officiel mooy suñu chaîne ci YouTube ñu leen di dig daje beneen dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen gërëm Jaawo Jàllo mi ne woon ci jàppandal gi dellu gërëm leen ci teewlu bi Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi ñu yendoog jàmm jaa ngeen